tey nag euh, dañu bëggoon ñëw waxtaan ci wàllu inondation bi nga xam ne tey moo am Sénégal donc d'abord dañuy jaale ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci wàllu inondation bi di ànd ak ñoom wax dëgg yàlla euh, ak métit bi euh, di massaw aussi ñi nga xam ne présentement dañuy nekk ci mbënd bi donc nag tey ñun li ñu tax a jóg mooy waxtaan ak waa Kaolack euh, Kaolack tey ñun ay jeunes lañ yoo xam ne dañuy créer plateforme attaque pour que vraiment dajale doomu Kaolack yi pour ñu ànd defar Kaolack euh, tey may ñëw di masawu ñi nga xam ne dañuy nekk tey ci mbënd bi vraiment maa ngi leen di masawu bu baax euh, di wax ne instant bi nii situation bu compliquée moo nekk biir Kaolack parce que quartier yu bari dañoo inondé mais nag may fàttali waa Kaolack ne leen assainissement bi nga xamné mo nek nekk Kaolack depuis jojo Ndiaye bi nga xamné tay tey kano yooyu moom moo fa implanté won donc depuis bobu ba amul changement te bu ngeen xolé quartier yi ñu ngi dem di multiplier wu donc ñu ngi multiplier wu donc nak bu yagge nak ba nga xamné population bi tay dem nañ ba toll ci un million deux personnes ñu bëgg toujours rek garder cet assainissement là yaakar na né inondation bi du gaaw ju Kaolack donc ce que vous aussi lancé lancer population il est temps que les ñu il est temps que les jeunes yi tey ñoom Nous sommes ñu savons ñun les ñu te nous devons Kaolack ñun ñoo donc moi, en tant que doomu en tant que natif de cette ville je ngi ne qui képp que da nga yaro les natifs de Kaolack attaque plateforme attaque mu ngi leen di wax ne dafa ubbi benn fonds de solidarité dafa bëgg ubbi benn fonds de solidarité bu tudd fonds de solidarité Kaolack pour que doomu Kaolack yi def seen participation massivement pour que ñu mun a fekk ci la population ci inondation pour ñu mun leen a jàppale parce que nag li ñuy wax naan béy ci sa woywu tànk parce que tey Kaolack bëri na doomu Kaolack yoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi partout dans le monde ñu ngi biir Sénégal te yàlla may na leen ay doole donc plus particulièrement nag maa ngi woo le président de l'Assemblée nationale Mouy Moustapha Niass di aussi Mangiwo, ngi monsieur Ndiaye l'ancien ministre l'ancien premier ministre di wo madame le ministre madame la maire Mariam Sarr di la présidente Aminata Touré di le ministre Djen Farba Sar, di wo Serigne Boub di wo maître Elas Diouf di wo Ahmed Khalifa Niass di wo Akon bi nga xam actuellement présentement au Sénégal di am lu mu implanté dañuy wax ne blanga ngaa laax jaay da ngay donc Akon ñu ngi lay woo si biir Kaolack di la wax ne la dañoo bugg fonds de solidarité boobu nga xam ne tey moom la attaque créé dañ la si soxla bu baax di woo ñoom kilifa ñi nga xam ne tout le temps ñu ngi porté combat mook Tchad Y'en a ngi porté benn combat pour le Sénégal tey am ngeen komba boo xam ne bëgg nañ ngeen porté ko muy combat pour naka la ñuy def ba xeex inondation bi nekk biir Kaolack maa ngi wax nag ñi nga xam ne tey dama leen a lim parce que ku lim da ngay juum damay woo képp kuy doomu Kaolack les Sénégalais de l'extérieur di woo jeune Kaolack gi di leen wax ne leen actuellement nii lii rek moo mun a tax ñu génn ci mbënd bi parce que état dañ koy xaar mu ñëw accompagner ñu mais état mënul def lépp maa ngi wax ne tey li may woo ne dama ci boole la pré la la la première dame di Marième fay Sall di di ko woo aussi di ko wax ne suñu fonds de solidarité boobu bëgg nañ nga taxaw si bëgg nañ nga jàppale ñu si pour que bu ko defee Kaolack ñu mën a xool naka la ñu mën a fekkee urgent ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir mbënd bi man leen fa génnee vraiment pour rapidement ñu naka régler cette situation parce que présentement bu ngeen xolé aujourd'hui y a des gens qui xamné ñu ngi ci biir taw bi actuellement pour ñu liggéey dañuy sol génn pour dem sol pour jël pantalon sol pour mëna dem liggéey dafa contre aussi ñi nga les politiques politiciens yi nga xamné tay defuñu budul bu tawé ñu dugg ci biir dëkk bi wax né dañuy maye ciép wala dañuy maye diwlin wala dañuy yaakaar naa population bi xaaruñu loolu ci ñoom population bi li ñuy xaar si ñoom mooy que ne ñu fekk leen fañ nekk jëlee leen fa parce que ceeb koo ko may dina ko lekk koo ko mayul dina ko lekk bi ñu ba léegi loolu la ñu xam donc li am importance mooy que il faut que ñu ñëw xeex li nga xam ni mooy inondation bi am Kaolack jéem a defaraat assainissement bi au niveau de Kaolack donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax wasalaam maa ngi leen di nuyu nag si turu plateforme mouvement ànd taxawu Kaolack